ñuy bind ne Wally sekk dafa yët sëñ Mountakha xalifa général de Mouride ab limousine bañ boole ay image yoo xam ne mi ngi doonoon bi muy jaale si sëriñ bi bi sëriñ Sidi Muxtaar nga xam ne image yu yàgg lañ jël kole moom ba non seulement ñi ngi ciy bind sax ba di ciy bind lu dëgg ku dem vérifier da nga gis li tax may may leeral ma leen di xamal ne sëriñ Mountakha mooy xalifa général de Mouride sëñ Touba la fi nekkal mooy jiite liggéey bi. yoonu morit nag dafa toll foo xam ne am na ñoo xam ne sax ay tubaab lan duñ ay jullit waaye ñi ngi jóge fu ne ci àdduna bi di ñëw di xeeñ tuuti jeexit gi fi sëriñ tubaab bàyyi ci liggéeyam ñuy jóge fu ne ci àdduna bi ñëw di ko gëstu di traduire am mbindam ci yeneen langue yoo xam ne dana bokk langue yi ñu dégg kon ñoo ñooñu bëgg a jariñoo tax ñuy def loola doomi Sénégal nag bu nekkee fii ci biir réew mi bokk fa mu bokk ne daa bëgg a xeeñtu loolu nan ko ko nangul waaye nag nañ leeral fi sëriñ bi nekk jamono ji yàggu dara ci gannaaw dafa yeesal ndigali lislaam yeesal it terey lislaam mooy li nga xam ne sëñ Abdul Ahad xalifam ñetteel bi moo ko fi defoon muy fexe ba la aram màkk aram tuuba fexe ba la dagan màkk dagan tuuba bokk na ci yin fi aaye woon mooy tëgg aaye fi am fecc aaye fi barabu jaayukaay yu soxna yi aaye fi tux ak xeetu tux moom mën a doon aaye fi it naan ak xeetu naanu gum mu mën a doon ak caaxaan ak football ak yooyu yëpp ñu ko fi aaye aaye fi riiteeg carte ak yee ci aju mboolem loo xamante ne bi lu lislaam gërëmut la ñu aaye ko fii ci dëkk bi aaye ko it taalibi sëñ Tuubaa yi woote ko ci kanamu njabootu sëñ Tuubaa bi moom mii ñetteelu xalifa bi ndax sëñ Abdul Ahad mi ko fi defoon mooy ñetteelu doomi sëñ Tuubaa bu ko fi wutu woon sëñ Muntaxaa mi ko yeesalit mooy ñetteelu sëtu sëñ Tuubaa bi ko fi wutu kon sëñ bi xaal naw yoon te foofu la nekk képp ku bëgg a jariñu it da ngay xeeñtu yoon wi sëriñ bi xàll ba pare nga doog cee jariñu ndax sëriñ bi loolu la woote indi na ab oto ak indiwut oto ku ne la oto mën a yéem waaye du yoonu murit yoonu murit xaaruñu kenn ci oto sëriñ bi li ko fi indi woon mooy defar nit ki boo ñëwee loo mën a indi ak lu mu rëy rëy na nga yéemu ci sëriñ bi xool yoon wam lay xàll ak lam lay digal ak lam lay tere nga dox ci loolu rek mooy solo si gis nañ oto bi bi mu ñëwee it sëñ bi nangu na ko ni muy nangoo lépp nag ndax lëggéeyam sëñ Tuubaa ku ñëw ne di joxe naa lii ngir sëñ Tuubaa kenn du kenn du boddi kenn ndax yoon wi doonut fu ñuy boddi kenn wala lu ñuy tëjal kenn wala nang waaye da ngay ñëw ñu defar la waaye yow ma ñu defar ndax bëgg nga defaru loolu mooy solo si da ngay da ngay doon ko xam da ngaa bëgg defaru moo waral nga def lii buñ la defaree nag aw yoonu defaru bi mu paree sëñ bi joxaat na oto bi ku ñu naan sëriñ Mamadou Mbacke doomi sëriñ Cheikh Absa Sey kenn ci ñi liggéeyee ci biir kër gi la sëriñ bi mayaat ko oto ba kon oto bi li muy yéem yéem ñun li ñuy yéem mooy li tax sëriñ bi jël ko fi sancé joxewaat ko fi sancé nga xam ne taxawut oto bi fanaan ak moom daal di koy joxaat kenn ci bëkk néeg yi ci kër ga may ko ko loolu it nañ ko ci leeralaale ndax buñ bindee rek na sëñ bi yor na ko di bind ne jo nangam ak nangam day mel ne euh, xëy na addee ji lu jomb la wala leneen ba it ñoom loolu lañ ci bëggoon ngir médiatiser yo loolu tax sax may génn di wax ndax gis naa ci internet fu ñu bind ko boole ko image yoo xam ne du image yu bees image yu yàgg la ñu koy partagé waat it li tax may leeral mooy ñoom xamuñu dëgg-dëgg na lii image bu yàgg la bi lu oto la comme oto yëpp rek xam nañ parkin ba mu nekkoon xam nañ ci loxo yam jaaroon fañ ko doon jaayee nañ ko doon wecce ko diir ba mu fa am lépp xam nañ ko jox nañ ci ay leen nañ donte yooyu yëpp sax jërul ñu ci dugg waaye ñu xamal nit ñi ne xam nañ li xew li ci ëpp solo nag mooy sëriñ bi fi mu nekk moo war a doon suñu yitte mooy nitug lislaam la liggéeyu sëriñ Tuubaa yore am na yoon wu mu xàll sëriñ Tuubaa lii moo doonoon mission moom aw nit la doon defar ba nu jag mu taqale leen ak seen borom ngir ñu jaamu yàlla ngir mën a ngir mën a jariñ seen bopp wala jëriñ seeni bokk kon sëriñ bi foofu la nekkoon képp koo xam ne dangay tuddoo sëriñ bi ak foo mën a nekk nag nanga xam ne li valable ci taalibe sëriñ Tuubaa mooy sax ci njub jaamu yàlla nangoo liggéey ak ak ak sax ci ak taalibe waaye boo xasee ne ak taalibe nag ndigal ak tere dañ lay accompagner sëriñ bi daa digle ne lii bëggut a gis taalibe sëriñ Tuubaa bu ciy dox ndax lislaam a ko ko tere lii bëgg naa gis taalibe sëñ Tuubaa bu ciy dox ndax lislaam a ko ko digal kon ndigal yii ak tere yi nañ ci jukki suñu bopp sëriñ bi bëggutum fo tere na ko ci mbooloom tere tuwaaru senegal fu am murit ne bëggutit ay caaxaan wala loo xam ne lislaam gërëmu ko kon la sëñ bi digle nañ ko xam te jëfe ko képp koo xam ne nekkoon nga ca te bëgg a jariñu ña nekk ak yow nañ la woo dee ba nga ñëw ñun la sëriñ bi kat lii la tënk ci taalibe sëñ Tuubaa yi te yow mii boo dee ab woykat wala ngay ab fecckat wala ngay ab baalkat wala ngay nàngam xamal ne sëriñ bi lii da koo teg ay ndigale ki tere waaye nag du ndigali boppam yum yum yum yum modifié lislaam a ko digle tere yi du tere boppam yum modifié lislaam a ko tere fii la sëñ Muntaxa nekk képp koo xam ne bëgg nga cee jariñu nag nattal sa bopp fii sëriñ bi nekk nga jukki ci sa bopp niitoo ci sa pas-pas looloo taxoon ñu doon leeral ñu xam ne sëriñ bi bi mu ñëwee it doo yëkkati àddiyee ne sëñ Tuubaa laa ko jox mukk jox ko sëriñ bi mu la koy delloo waaye nag bind bi mu ci war a jëlee mooy lu tax mu ñëw fi sens rek mu daal di koy mayewaat ci sens wane na ne moom li mu bëgg mooy ndaw ñi dañoo war a jub dañoo war a tege ci yoon dañoo war a jaamu ji yàlla dañoo war a liggéey dañoo war a xam seen diine xam dëgg-dëgg kan mooy sëñ Tuubaa ak fan la nekkoon. kon loolu rek laa ci amoon lu may leeral ñu xam ne wata bi ba mu ñëwee sëriñ bi joxaat na ko sëriñ Mamor doomi sëriñ Cheikh Absa Sey man mii di wax sëñ Mamor dawal na oto bi ba ci samay tànk ba ma dugg ci biir oto bi. kon xam naa ci lu bari xam naa sax ka doon njëkk doon ko waxaale ngir bëggoon koo jënd kon donc li ci ëpp solo rek mooy nañu xam ne du oto moo nu yéem waaye doxinu sëriñ bi moo nu war a yéem fi sëriñ bi nekk moo war a yéem nit ñi waaye jëmmi wata warunu yéem ndax kon day mel na noonu alal la nu tax a jóg waaye nag li nekk ci sëriñ bi ba nga xam nit lu mu baax la jël ko yët ko sëriñ bi looloo nu war a yéem kon wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu noo ngi tuubaat bu baax tey jéggalu jubluwuñ ci dara nag waaye dañuy leeral rek ndax comme image baa ngi tasaaroo te fu ne dafay dugg ñu leeral na fii la commencé woon waaye fii la yem la ci des nag moom sunu yoon nekk ci jërë ngeen jëf. ngeen jot suñu vidéo nag foo leen toll si biir réew mi wala si biti ngeen di abonné fii si Tawfekh ngeen mën a jot moo xam ne dugal nañ ko ngir mën a xam